je suis pas d'accord suñu wax ni manifestation bi leaderu Yewwi am euh, dem ne dañuy Yewwi Ousmane Sonko que c'est un flop man jàpp naa ni c'est un acte symbolique fort euh, parce que en politique tamit euh, le symbole est important soo gisee nit di def marche du dara lu am lu muy wane mbir bi sax du rek mbooloo quelquefois fois peut être quelque chose de très symbolique et moi je salue au contraire seen action boobu je trouve que c'est un acte de solidarité parce que tam jusqu'à présent cet état de siège bi gouvernement bi teg wax nañ ko waxaat ko ñoom pour man je ne suis pas encore convaincu que ils sont dans une posture légale je sais que dans certaines conditions su nekkee am na trouble à l'ordre public mën nga mettre même quelqu'un en état d'arrestation ou bien de contrôle ou bien assigner ko à résidence mais lu mel ni su yàggee nii war nga génn indi ay kayit euh, am sax décision de justice bu lay may nga nga taxawee taxawaay boobu nga teg nii parce que je trouve que quand même a une certaine injustice jël koñ lëmb jël un leader tëj ko téye ko soo ko téye woon parce que dafa na ko bëgg dem juger na nga ko jël dem juger soo ko téye woon parce que dafa am désordre public bés bu ordre bi désordre boobu arrêté da nga ko war a bàyyi soo ko téye woon pour leneen tamit na ko def waaye. taxawaay boobu état de siège boobu ça ne pouvait être qu'une mesure temporaire et donc c'est scandaleux que ñu bëgg ko def une situation permanente parce que man loolu su ma koy gis je me suis dit bon de manière aussi flagrante ça montre que le Sénégal le gouvernement du Sénégal en fait faalewul citoyens yi faalewul ay loyam faalewul ay c'est c'est l'état de droit kon man c'est le la lecture que j'en fais on n'a okay. pas besoin d'être au centre de cette affaire pour se rendre c'est une action scandaleuse. Donc c'est pour ça, moi, je salue le, le, le courage et l'acte symbolique posé par les leaders qui sont allés de, euh, devant, devant chez lui hier.